waaw El Hadj Ibrahima euh, Soli yow sëriñ nga fii ci dëkk bi ñuy wax Karantaba su naa ba bu ñu koy xam ci senegal bërëbu ñaan la nit ñi doon nañ jóge fu nekk tey ñëw nañu visiter Suna Karantaba gis nañu ak yow yi nga xam ne mooy jàq-jàq ak li nga xam ne mooy seen yitte yu mag yi. nga nuyu waa Sénégal yëpp ci shahr Ramadan ci ver bu tedd bi maa ngi nuyu waa Sénégal bi yëpp ci mois bi. di ñaanal waa Sénégal bi yépp di wutu ñaan ci waa Sénégal bi yépp ci jaamu yàlla lu ñu def ci mois bi pour yàlla mu nank suñu jaamu yàlla yi en même temps aussi yàlla mu nank suñu ñaan yi parce que Sénégal bi yépp benn la pour jàmm bi mu sàkk ci Sénégal Babacar question li nga ma laaj mooy premièrement pour suñu suñu jumaa bi loolu mooy ci yitte suñu yitte waa quarante ba yépp moy suñu jumaa actuellement parce que c'est sûr que de toute façon état bi mu ngi def lu mu mën malgré dafa yeex parce que commencé nañu liggéey bi avant suñu gàmmu bi ça fait presque quatre mois donc lolu mom jumaa bi moom parewul pourtant lolu suñu yité yu mag a maga, maga, magala. la ah, même parce que taw bi mu ngi commencé ñew loolu mooy suñu dañu ragal loolu ci loolu parce que xam nga taw bi suñu situation lu mu mel nii dana nekk vraiment euh, le doy parce que comme juma bi juma du juma ma ba du juma du monde entier la donc taw bi suñu yi suñu juma ancien juma bi banko la donc taw bi su ko de toute façon mun na yàq lu bari mun na lu bari bari bari

ne ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax yow ak sa gouvernement bi yépp depuis le premier ministre bi ministre de l'intérieur ak waa gouvernement bi yépp yàlla mu yombale leen liggéey bi ak jamono yi fu ñu dem ni mooy élection bi pour yàlla mu yombal élection yi en même temps aussi benn fitna mu bañ am ci élection bi mais ñu ngi lay ñaanal bu baax a baaxal le président de la république pour juma 40 bi vous êtes le premier président du Sénégal yoo xam ni et et gouvernement ñu commencé def dara ci ci bi donc ngi lay ñaanal yel continuer mu vraiment mu eh, eh, parce que pour nous moment nous sommes inquiets parce que taw bi mu et pourtant nous dëkk bi ñu et pourtant lu ñu ah, avant taw parce que commencé na bu paré Casamance xamee nañ ko muy taw taw yu bare taw yu mën a daaneel li nga xam ne mooy bâtiment bi nga xam ne moo doon jumaa ji ñi ngi wax ni jumaa ji am na six siècles mooy six cents ans

nawet bi dañuy ragal tamit yoon bi nga xam ne mooy tax oto yi mën a dem ak a ñëw dugg bi ak jokkoo bi yomb euh, nawet bu ñëwee dugg biir ba wala génn Karantaba dafay metti tey lan moo lan nga xalaat ni moo war a saafara loolu. loolu moom aussi mos nañ ko wax ci télévision yi de toute façon xam nañu président bi moom dafa bari nopp dafa bari eh, bët moom xam nañ ko wax nañ li ñu ko ñaanal mooy. entre Karantaba ak Dioboukounda ak barrage Ali Souané ñu ngi ñaan état Sénégal le président de la république moo oo xam ni e, e, e, famille am moo fi nekk donc pour ñu dimbale ñu ci yoon boobu parce que Karantaba soriwul Sédhiou mais en même temps aussi dafa sori Sédhiou torop donc Sédhiou moom su ñu amee soxla boobu su fekkee ni dans la journée la mun nañu dem Sédhiou rapidement ñu ñëw en même temps entre et et Sandinière Bagnères un yoon bu baax la macha allah mais à certaines ay certaines heures suñu un soxla par exemple suñu amee ay malade donc de dafa ci guddi donc Ziguinchor de parce que c'est parce que Parce entre a donc a donc carrément donc navette bi su commencé pour accès pour Kolda ça va être difficile pour wa Karantaba bay pourtant population bi dafa bari c'est énorme donc il y a des moments ay ay jigéen yo xamné ñu ngi nekk ci Jikante et centre bi mu ngi fi mais am certaines choses ça dépasse à leur niveau donc loolu moo ñu ngi joytu président de la république pour mu dimbalé ñu ci yoon bi pour ñu yoon bi ñu mëna a nekk yoon bu baax pour ñu mëna ko utiliser qui qui lu gën gaaw. loolu moo tax wax nañ ko ñu wax ko xam nañu affaire état du gaaw mais le président de la république waa Karantaba yëpp ñu ngi leen ñaanal ci ci yooyu pour entre Karantaba Dioboukounda Barach Ali pour pour c'est pas c'est pas énorme pour nga dimbali ñu pour yoon boobu pour nga defar ci population yoo xam ne xayma nañ ko weesu na plus de 6 000 personnes ñu nekk fii euh, biir Karantaba lu ñu am mooy benn poste de santé boo xam ne lépp a fay manqué ba ci garab yu gën a néew tey am nañu fondation bi nga xam ne première dame bu Sénégal Mariam Faye Sall moo ko yore ñu tuddee ko servir moom mi fekkee ne mu ngi leen di déglu lan ngeen koy bëgg a wax tey. alhamdulilahi rabbil alamin pourtant loolu ñoo ngi koy dëkk aussi am na sa am na am na programme boobu ci madame le président de la république. Eh, madame Mariam Sall Faye ah su fekkente ni moom mun nga eh, eh, xool sa ginnaaw bii waa Karantaba yi dinañ kontaan lool ci jigéen Karantaba yi pourtant mosu nañ la bindi di xam ne gis nga lettre bi wala déet mais jigéen Karantaba yëpp mosu nañ la bind ñu ne bëgg nañ la gis Karantaba évité nañ la Karantaba donc loolu moom dispensaire yu ci fii loolu dafa tuuti torop pour waa Karantaba yi surtout jigéen ñoo xam ne ñu nekk ci jikkante yi des fois souvent ñu am ay difficulté yu metti yu metti metti metti surtout pendant nawet bi garab yi dañu manqué en même temps aussi liggéeykat yi ñu nekk foofu ils sont très courageux am nañu volonté yu bari vraiment liggéeykat yu mag lañu ñu ngi leen nuyu bu baax ñu di leen ñaanal yàlla mais population bi dafa ëpp seen lox dafa leen ëppal lox parce que population dafa bari 40 Karantaba Jidinki Mané Kunda Bamba Diong ñoom yëpp ci poste santé bi lañ bokk loolu moo tax su fekkente ni eh, eh, eh, madame le président mën nga ñu dimbali pour affaire bi ñu bañ a manqué dara vraiment dinañ la sant bu baax dinañ la gërëm bu baax. at bu mujj bi maa ngi koy jëmale ci. daara yi parce que ku wax Karantaba xam ne bërëbu jàngukaayu alxuraan la bëri ngeen ay ndongo yu jógee fu nekk 90 pour cent yi Sénégal lañ jógee euh, ñi ñu ngi jógee Gambie ñi ñu ngi jógee Guinée Bissau ñi ñu ngi jógee Mali di sàkku ji xam-xam fii euh, tey Sénégal politique gu gouvernement Sénégal moo di euh, dàkkal lii di yelwaan mooy interdire la mendicité gis nañ ni yéen seen i seen i fi lool macha allah waaye kenn talalu ci loxo ku ci dugg ci réew mi dëkk bi ba ngay génn doo gis kenn ku la talal loxo tey est-ce que contact ak ñi nga xam ne mooy gouvernement Sénégal ci wàllum jàppal leen parce que dañu Euh, euh, jàngalekat daar bu nekk fekk fu muy nekk jàppale ko pour mu am lu mu dundalee ay ndongom est-ce que yéen bokk ngeen ci programme yooyu. ah programme boobu de en tout cas eh, bind nañ ko président de la république pour loolu sama mag Cheikh El Hadj Abdoul Kadiali Soli mos nañ ko bind man El Hadj Ibrahima Soli bind naa ko pour mu mu dimbali ñu ci daar moderne daarul Quran boobu su naa karanta ba daar boo xam ni dafa ëpp na ñeenti téeméer xale. yoo xam ne ñu ngi fi mais 90 pour cent yi sénégalais lañu donc je peux dire que 5 pour cent yi mooy waa Gambie Guinée Bissau Mali Mauritanie ñoom ñëpp ñu ngi ci daara ji donc lu ñu ñaane président bi pour mu kenn du yelewaan fii avant que l'état interdit ci Mandius TV ñun duñu ko def parce que lu ñu fekk ñun ci suñu papa yi donc de toute façon ñoom yor nañu daara mais kenn du dem yelewaan donc suñu maamaatu maamaat yi kenn du dem élevage parce que ñoom aussi dañu jàpp nii rek yenent bi mu ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ñoom ci tànk boobu la ñu nekk ñu ngi jàngale alquran jàngale xam-xam bi jàngale sunna ak diina pour xale yi pour ñu bañ a nekk ak réserve donc loolu moo tax ñu ne borom daare yi ak état ñoom ay kii lañu rek ñaar loxo yi la donc soo xoolee donc borom daara yi ñu ngi dimbali état yi parce que xam nga état bokkul bokkul lu woon ci dans son pays donc borom daara yi ñu ngi dimbali pour état bi libé état bi xam nga gis nga day fay ci ci école yi maître yi état bi da leen fay ñun amuñu fay suñu suñu ostaaj yi amuñu fay dañu def ngir yàlla mais lu ñu bëgg mooy état bi mu mu xool ñu aussi mu dimbali ñu ci dund xale yi mu dund li ñu santé xale yi donc loolu moom amuñu ko dem bind nañ état pour daar moderne yi ñu ngi koy xaar yaakaar nañu incha allah dinañ ci am. question bu mujj bi mooy euh, fii euh, macha allah bëri na ay ndaw ay ndaw yoo xam ne toll nañu ci liggéey waaye bu ñu waree dëkk bi ba mu jeex gis nu benn bërëbu liggéeyukaay lu dul ay quelque ñaar ñetti atelier yu ñu gis fii si biir euh, Karantaba est-ce que ndax Sénégal ba mu daj ñu ngi wax ay PSE plan Sénégal émergent di créer ay emploi est-ce que yéen waa Karantaba fii bokk ngeen ci ñooyu wala lan ngeen bëgg a wax état Sénégal pour ñu mën leen gestu ci projet yooyu. waaw ah, ci projet yooyu de yaakaar na état yaakaar na dinañ ci bokk parce que ci Sénégal la bokk ci comme programme bi am na Sénégal yaakaar na dañ ci bokk mais pour le moment ay amuñu ko fii donc pourtant ñun borom daara yi loolu mooy suñu inquiétude bi. parce que xale yi bari nañu ali xale fii yoo xam ni jàng nañu école ñu dem ba eh, eh, eh, licence maîtrise amuñu liggéey la plupart ñoom ñëpp dañu daw dem jël calier pour dem wut et pourtant la plupart aussi ñu bari day nañ ci yoon bi donc loolu mooy suñu suñu suñu programme yi tout le temps ñu ngi waaraatee ci yooyu pour en essayer et décourager xale yooyu pour loolu mais malheureusement c'est toujours difficile donc état bi su fekkente ni am na ay programme yu mel noonu donc suñ ko amee vraiment ça va danañ ci kontaan lool parce que xëy na loolu dana décourager xale yi pour ñu génn pour dem wut parce que loo xam ne yaa ngi dem pour wutu ki biti soo amee ki sa sa sa biir néeg de toute façon yaakaar na da ngay sant yàlla donc programme boobu yaakaar na danañ ko bokk mais pour le moment fii amul bi xale yi fii am nañ courage loolu waa Karanta Bay parce que lu ñu xam fii mooy alquran diine ci alquran donc am na xale yu bari dañu jàng métier mekkee menuisier yi plombier yi calosurier yi donc ñoomu ñëpp ñu ngi liggéey fii am nañ am na waaye di ciy ñu ngi liggéey fii loo soxla fii ci côté yooyu di am fii donc maa ngi vraiment saluer ci xale yooyu seen courage bi boobu ak seen gëm yàlla boobu ngeen continuer ci am donc lu lu lu jot rek day yomb donc ñu ngi ñaani état bi pour loolu aussi programme yooyu pour ñu bokku ci ñu am ci danañ ci kontaan.